asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyu ko ci nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di santaat yàlla bu baax bi ñu mayee ñu fekkee waat ba teewaat fii nga xam ne mooy leeral TV leeral point net émission aada cosaan ñu koy def dimanche bu jot quinze h 30 di ci ànd ak ay kàngam yoo xamante ne nii ay garmi lañ ñu leen di ñaanal jàmm di leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa àdduna di nuyu kilifa diine yépp ku ci nekk fa nga toog ñu ngi la fa fekk sukk sa kanam di la wax asalaamaaleykum di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di nuyu ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat ci seen njaboot ñi caabi féete ginnaaw yal leen yàlla may liberté ci barke Seydina Mouhamed te bañ faa dugalati kenn ñaanal ñi nga xamante ne képp koo xam ne am nga tëni nga ñu ngi lay ñaanal jàmm bu baax a baax baax ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur gi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm ndax jàmm àdduna mooy suñu jàmm jàmm Sénégal mooy suñu jàmm bu baax a baax képp koo xamante ne jamono bii ñuy wax yow am nga ko wàññeeku sa kër ñu ngi lay jaale di la masawu bu baax a baax di ñaan yàlla na fa géej lool yàlla def si kër yi jàmm def fi xéewal ñu ñaanal képp koo xamante ne yaa ngi nekk fii nga xam ne mooy diwaanu luga te nekk fi kilifa muy waa kër sëñ Abbas waa kër Thierno Bachir Tall ku lim sax il faut nga am koo bàyyi mais ñu ngi ziyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di am mbégte kontaan teewaat fii nga xam ne mooy leeral TV leeral point net du nuyu nga xam ne mooy suñu papa suñu xarit suñu tonton suñu mag muy tonton Ngaari di ko wax namoon nañ la di jaajëfal Alassane Camara mi nga xam ne moo fi teewoon dimanche bee di passé ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Alassane Camara ku baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tonton Ngaari nuyu nañ la ziyaar la di la wax namoon nañ la dimanche bii di passé gisuñu la waaw maa mare maa ngi billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala rasulillah sant yàlla sama borom julli ci Seydina Muhammad sant suñuy waajur ko ñu leen ñaanal sant suñu wasila wa Cheikh al Khadim barkab Serigne Saliou euh, maam Maram ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Ndeya nuyu Murit sunu xarit moom it di nuyu Abacar ñu réalisé émission bi nuyu Papa Diagne ñu assisté daañu ko gis ci kanam incha allah euh, di nuyu képp koo xam rek yaa ngi ci daaru dunya góor ak jigéen mag ak ndaw ay nuyu bépp nag moo ngi ci jël Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou Serigne Touba ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér di nuyu Serigne fi yàgg lool te mboolam xalifa yi nga xam nit ñu ngi ci kaw suuf nuyu waa jàngul ñaan yàlla ñu ci dal hôpitaux yi tëdd te tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp jullit ñi dawlu yal na yàlla xaren aji ñoom ñëpp di jaal sama bopp di jaal samay bokk ñu koy jaal Ousseynou Fall sunu mag ñu fi dëddoo barki démb ah, macha allah yal na ko yàlla xare àjjana ak mbooloom ñam fa fekk ak ñu ñëy koy fekk si ëllëg tubarkàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyu képp ku koo xam daal jamono bi ak ñuy bàyyi xel ñu ngi lay ziar bu baax di ñaan yàlla doore jàmm jeexale jàmm te lépp di njëriñ lu jëriñoo ko lu jaa rasulillah jëf tonton Ngari xanaa di la jaale sa mbokk ma mu nga xam ne moo génn àdduna rek yàlla xaare ko àjjana bu baax moom Ousseynou Faye suñu koy ñaanal yàlla xaare suuf ci kawam di ziyaare ki nga xam te ne mooy Papa Dieng moom tamit xam naa ci kanam tuuti la ñëw toog fii rek ñu ngi koy ziyaar bu baax murit moom tamit kenn demul ñu des ndeyaa nuyu naa la ziyaar bi waaw asalaamaaleykum waa Sénégal ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di ñaanal ñi si hôpitaux yi yàlla suñu borom fëgg seen bopp bañ dellu seen njaboot di ñaanal aussi prison yàlla leen fa yàlla génne bañ dellu seen njaboot di jaale aussi sama maam bu wàññeeku démb muy mère Aïda Niang ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom jéggal ko ay bàkkaaram taxare ko ci àddina yi kawe di jaale képp koo xamante ni am nga ko génn àdduna instant yi ñu toll nii di ko jaale aussi toute la famille ba di ko jaale ñëpp bu loolu weesoo tontoo ngaari maa ngi lay nuyu di la ziar mamarem aussi maa ngi lay nuyu di la ziar murit aussi di la wax namoon nañ la di ziar Papa Dieng ak euh, Babacar mi ci réalisation bi macha allah. Euh, merci beaucoup Ndeya yow tamit xanaa di la jaale bu baax rek ndax. toll nañ foo xamante ne fi mu nit ñi ñu baax ñëpp a ngi dem ñuy defaraat toogaay yi rek te lépp lu waay di def bañ dee fekk la ca rek bu yeboo nga ba ko joteel ndax àdduna jeex na ñu baax ñi dem nañ Serigne Saliou Mbacke ñu ngi koy ziar borom xel kom borom jàppandal tey defe naa ne ku dem si côté gare bee di gis oto ya ñëpp a ngi jëm xel kom ñu leen di ñaanal yoonu jàmm yoon bu sedd guy yàlla yàlla teg ñëpp si jàmm ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci barke Mouhamed ci barke Serigne Touba Mbacke mais ñuy jaajëfal Babacar mi nga xam ne moo nekk ci technique bi kenn du moom njóobeen bu baax bi ñu doon wax buumu bi nga nga xam ne moom la murid di xalam tey buuru xalam boobu tey nan la tudd. foofu moom bett na ma tey buur ndax buur ne xamaguma buur foo ne murid. bu baax a baax di nuyu sama copain Papa Dieng tey nag fi ñu génn mooy nga baax yaa ca kanam laay wa laay yi ca kanam ca kanam kanam ñu bon nga baleen baax ca kanam kooku sama benn jigéen bu dëkk ndar moom la fental morceau boobu. waaw. ñu ci jaajëfal waa ndar yépp di leen wax. waa Ndar ak waa jàmmalaay tamit defe naa ne waa jàmmalaay am nañ fa ay nit ñu ay jàmbaar ay jigéen ñu nekk foofu di jaay jën kaar macha allah ñuy ñaan yàlla yàlla defal jàmm moo li tamit ñuy dugg si jàmm génn si jàmm ak salaam waaw ba tax na dañuy daal di xuus nag ci biir émission bi muy leeral TV leeral point net émission aada ak cosaan tey ñu fa yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy ngistal ngistal nag dafa yaatu tur bi dafa gàtt mais ngistal dafa bëri tonton Ngaane tey boo ñu doon wax ngistal tey lan mooy ngistal. jërëjëf maam ma rek ci thème bu solo boobu ngeen di indi tey dama wax mu nga nee na xalam gi de na ku nu ko fental bu doon la ma wax la bi mu doon gannaaw nag buum euh, fi mu ne ak fent la kon moom rek moo ko mën a décortiquer ci allah. ki mu ko fent nit yàlla na ko jig tamit njëriñam thème ah, bu solo te ci jamono waaye rawat na réew mi benn waaye nee na ma ndax sénégalais nga manu ko ah, Louga da juddoo mhm. te mbay laa sant mhm. yaakaar naa sénégalais laa du ma parce que du ma nationalité bu ma lu bëri ma ne ko du ma wax Mauritanie ndax xaw ma ko mhm. ma ko wax Gambie ndax xaw ma ko fi ma ne laa xam ndax moom laa fi gis kon ci réew mënu ne ngistal bu bari na fi trop ci fànn yëpp nag ngistal mooy di ko def loo gëmul li yàlla gën a bañ ngistal ngistal dafa lonk ci naafiq ñoo bokk ndey muy jikko ju bon ci doomu aadama ngistal maanaam def loo gëmul wax loo gëmul jéem loo mënut ba noppi gëmoo ko ñu bari nag moo leen lor mu yaatu nag lool nit dana maye kër sax ba doppi ba ba ta ngistal la nit dana maye oto ngistal la nit dana yorul kër ngi maanaam jibil ci dépense su kër bu noppi ngistal la ndax lu mu ci def wax ko feeg nit a ngi dimbali nit di di ko wax ngistal la murit ñëw ne la waay sa waay yoroo foofu junni nga ne ko non papa yëg laa ko jox léegi pourtant ñoom ñaar yëguñu sax bam fay ñëw sal la parce que bën nga koo bañ a wax kañ ka ko jox ne ko néew fi wala bu danaa xool bu fi kiyee ma yembee ma jox la ngistal nag moo bari ci réew mi dem na ba nga gis nit ku feebar hôpital ñu koy wëral lu ko faj ñépp croiser les bras ba waa ji liggéey li ngay njëkk def mooy gaare oto pour wàccee ceeb ak diw ca kër ku faatu ko doo ko yónnee yaa ko yóbbul sa bopp boo ñëwee gaare booy kaa leen wàccee ceeb bi waay di di wanewu ngistal la pourtant waaye bi mu ne hôpital mu ordonnance su 10 000 francs munoo ko jënd ba mu faatu saa ko ci ëpp na 10 000 francs lu gis tal la ak a bëri ci réew mi njaay caay boo ko bëggoon dindi tuutee fi des Sénégal jëfi ngis sal dafay bëri seulement ne yàlla baal seen foo type yoo xam ne nit ñoo xam ne noonu la ñu leen mën a tudde dañuy def lu ñu gëmul baa di ko wax erreur weesuwut loolu kon képp ku ne ci wàllu ngis tal gëmal ni jubóo woo ak yàlla sama sama borom Seydina Muhammad waxul ceew lu bari kenn waxul ceew lu bari kon nag kenn ku ne war naa góorgóorlu moytu ngis tal parce que du du rafet. war defal naa ne kuy def defal doomu aadama ndax soo defee ngir doomu aadama sax bis mën na ñëw nga jote ak moom nga ne ko dangaa fàtte ba ma la defalee nangam bi kon kuy def rek defal te yàlla suñu borom tax Ndeya tey boo ñu doon wax Nguistal tey lan nga ci mën a leeral. oh Mamara li ma ci mën a leeral mooy comme li tonton wax rek tonton Ngaari daanaka wax na lépp parce que ngistal mooy kii te nit tax te deful te yàlla tax yaakaar na nit buy def dafa war a def te yàlla tax te fayu yàlla moo gën fayu nit. mais di def pour bëgg nit ñi di la tudd wala ngay def bëgg nit ñi di ko wax fu nekk loolu lëre woo sa bopp lëre woo nit ñi sa bopp ngay nax parce que nit ñi bu seen gërëm amul sens parce que nit boo ko am na ñu wax ne boo leen defalee ñu gërëm la boo leen defalul ñu gërëm la kon loolu ngërëmu intere lay doon yaakaar naa jullit bu nekk buy def war na def ngir yàlla tax mais warul def ngir nit tax ndax ngërëmu yàlla moo ëpp doole fuuf ko ngërëmu nit Mame Euh, merci beaucoup Ndeya ngërëmu yàlla moo ëpp doole téeméeri junni yoon ba tax na dangay gis ku ci mel ne maam bu nekkee këram du julli mais su génnee si nit ñi fu julli jotee mooy njëkk ci satala ya mooy njëkk ca la ca des defe naa ne kon kuy def defal te yàlla suñu borom tax mais booy def ngir nit ñi rek defe naa ne nit ñi nga ci am mais doo ci amati yàlla ñu jëli benn élément deux fii ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. tur bi la. maa jigéen maa jigéen saw yaa ngi fii tey ci biir Leral TV seen émission aada ak cosaan ñu fas yéene waxtaanee thème bu am solo muy ngistal maa jigéen lan nga ñu mën a wax ci ngistal. Euh, am naa yaakaar ne ngistal moom mooy euh, ki nga xam ne si nii day def bëgg nit ñi yëg ko ci sama xalaat bu gàtt loolu moom mooy ngistal maanaam nit koo xam ne si nii day def pour wanewu voilà mais defu ko te yàlla tax daal. est-ce que kiy def te di ta te pour wane wu ak kii def te yàlla tax ñaar ñooñu ban différence la am est-ce que kiy def di wane wu am na sens. ah ci sama xalaat bu gàtt day amul sens amul sens ndax euh, looy def te yàlla taxut doo ci am dara bu fekkente ne da def nag. te yàlla tax danga ci am yàlla am ci yàlla nag moom mooy euh, am fii nii dolliku waaye am fële aussi lu kawe sa njort loo xam ne si xëy na doo ko foogee jëf ja jëf ñu baax ja nga def moo tax yàlla fayee la lu baax la nga la nga fay fekk wante su fekkente ne da nga nekk si àdduna nag di def loo xam ne si nii da nga bëgg maasamba di la gis wala maasamba di la di wala ñu lay tudd loolu yaakaar naa ne doo ci am lenn lu dul ay déception ndax euh, nit ñi moom bu fekkente ne ni da def di ngistal ñoom dañuy ñëw di wut si yow te bu ñuy wut si yow seen intérêt moom moo leen tax a jóg dinañ la wax la nga bëgg a dégg lan lay wax bu ko defee nga defal leen la ñu bëgg nga xam ne si ñoom loolu la ñu soxla te yaakaar naa loolu amul benn amul benn njariñ njariñ la daal daanaka amul amul ndax àdduna dañ fee wàcc rek yàlla daf ñu fee wàccee euh, ngir ñu doxal ay mission yooyu la mission nag yaakaar naa ne daf ci bokk nag ngay fàttaliku ëllëg ci biir loola yàlla dencal mais su fekkente ne da ngay def ngir nit ñi moom ah fa tabaarakallaa di nga dinga nga am nit ñi wante période ba nga leen di am aussi day nekk période boo xam ne si nii lu gàtt lay doon ndax àdduna dafa doon loo xam ne si lu cëkk la ci doomu aadama rawatina ci jamono ji yi nga xam ne si nii si lañ nekk Euh, kàddu yi am na solo lool tonton Matar. ah jërëjëf euh, Ndeye yaa jërëjëf tonton Matar yéen ñi nga xam ne yéen a ñu demaloon kooku nga xamante ne nii muy maa jigéen di suñu naataangoo nekkoon foofu ca Walfadjri ñu koy ah, wax na lu am solo ñu koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax li mu wax dëgg la ndax nit ki sooy wax nit ki pour lu ko neex. doo ko wax lu ko neex danga koy wax la nga xam te ne moom la bëgg a dégg te nit ki boo bëggee dara ci ay poosam rek la ko neex rek nga koy wax tonton Ngari dégg nga ma jigéen li mu wax léegi nee na nit dina ñëw si yow di la wax lu la neex ngir bëgg am ci yow dara kooku lu la neex rek la lay wax. waaw jërëjëf euh, maam Marème mhm. euh, mhm. maa jigéen ñu kàddu yu am solo waaye loolu dafa wuute ak ngistal kii ñëw ci yow di la wax lu neex daa bëgg dara rek. kooku du ngistalul moom day wut. Euh, moo tax mu di la wax ni ko rafet nga ku taaru mu soxla ku mooy ki joxe fan maam ma dem ñëw na kër ngaari wax ko soxlaam ci kër gi ñun ñaar rek ak yàlla ma ne ko baax na dégg naa la ba ngoon ñu daje centre culturel am lu fa xew ca biir nit ñi la lay woo mhm. madame sama na nga def waaye bi nga fa ñëw sànq nangam nangam mhm. et puis day bu dee vingt mille da ko yëg mu ñaari biir mu tàllal la ko pour nit ñi gis mi ngi lay jox vingt mille francs c'est malheureux boo ko defee borom jom mu delloo la mu bàyyee la ko parce que du ko jël mhm. loolu mooy gis sal façon yooyu mooy mooy dangay waxtaan ak Papa Dieng en douce ndeyaa agsi rek nga nga aj sa kàddu pour seeral ko ca wax ja soo ko defee borom fulla da lay tànqam lu baax mu ne ci leneen moom mooy woon mooy dëgguma la man dafa am ñoo xam ne loolu lañ man bu ngeen di waxtaan yéen ñaar na waxtaan wi sérieux de mais su nit bi ñëw nga gis mu aj baat ba pour kooka bokk ca wala ñooña bokk ca loolu ngistal la ngistal dafa bari ay façon ba nga xam ni euh, réew mi dafay bari dafay bari de ñii def ci réew mi te yàlla tax ak a néew yàlla rek tax bariwul de xam nga li may wax gaa yi maye fang war naa xew ndax tubaab bi dimbilu na ci tubaab benn ci dimbali mooy ñoom Wave ak ñoom Orange Money ñoom Kaape ñooñu dañoo rafetal mbir mi ba ku ko nam mu rek wax dëgg yàlla yéen te am na lu war a jeex nag moom ki toog ci néegam tëj buntam woo la téléphone ñu ne damaa bëggoon nga may ma dix mille waaye waaye dëgg kooku amul wax soo ko yoree ci saa ci téléphone bi balaa raccroché mu mu yëg ni message wàcc na moom ku ne jàpp sa jàmbur dimbali nga ko te yàlla tax loolu kay doy na ci waaye nit bu ñëw ci mbooloo doo ko yëg ci biir mbooloo ma di la jox ngistal la te loolu daa bari ci réew mi suñu bokki politiciens yi nag macha allah tubaarkàlla malaala ci leen ñoo ko fi dàq dañ sax gis politicien bu la wax ne man li ma def te yàlla yàlla taxul barke Cheikh Ahmadou Bamba ku ko def ma dellu parce que alal jagal jor baaxul loolu ku ko def ma delloo la ko bugguma ko même booy politique moom bay wut dara defal rek yàlla mooy fal yàllaay joxe jaam dangaa jaamu yàlla ci jaamam yi jaam ya du ñuy def te yàlla mën na koo lebal lu baax xam na ko ëllëg bu pay nga jotee mu fay la ko te du ci werante kon dama lay jox yàlla taxul mën la téye ko parce que doo waaye yàlla yow ku dul waaye yàlla loo yor bugguma ko ak bari ci réew mi tam def attention ci xaalis yooyu képp koy lekk jàngoro parce que lewul alal ju bon la ma dama lay jox ma yàlla taxu parce que damay politique. <laughs> c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi nit ku bon rek koy def. te moo am ci réew mi. macha allah yàlla nañu yàlla musal ci loolu noonu bépp alal bu ñu yor nekk yàlla nañ koy joxee te yàlla tax ñu ko joxe ci suñu xol bu sedd guy ndax prinça yi nit di la jox alalam fekk mu ngi la koy jox ci joxu jépp la nit di la jox alalam fekk lam lay jox da jënd mu ngi mel ne li nga xamante ne moom la maa jigéen wax prinça nit day ñëw jaay la ay waxam ndax bëgg am ci yow dara kon yàlla nañ yàlla musal ci loolu bu baax ndeya tey li nga xamante ne moom la ma jigéen wax tey sooñ ci doon jox tuuti rek lan nga ci mën a leeral Euh, li ma ci mën a leeral mooy comme ni mu ko waxee rek mooy li ma wax sànq rek nit booy def da def te yàlla tax mais doo def pour nit tax booy def da ngay def te yàlla tax mais doo def pour nit tax parce que ñu bari ñuy def pour nit tax c'est que dañuy dafay man boog sama gis-gis dañuy bëgg tour wala ñu bëgg nit ki di leen di leen siiwal wala mu leen di jàllale feneen ak feneen nit ñi dañ ko defu intérêt la boog ngisal pour man defu intérêt la parce que da ngay defal nit ki pour mu rendre le service wala nga defal ko wala mu tudd la wala mu def la feneen kon loolu daanaka fayantoo la kon nekkatul def ngir yàlla tax na fekkee da ngay def ngir yàlla tax rek da ngay doo def li ngay def loo xamante ni doo ci séntu dara doo ci doo ci xalaat dara dara en yow fay yàlla kese nga ciy xaar fay yàlla mu ëpp doole fay nit mais léegi en général nit ñi léegi bu ñuy def dañ koy fësal man man jàpp naa ne sax kuy def te yàlla tax du fës da nga koy def te kenn du koy yow ki nga koy defal kese yéen yéen a koy mais comme tonton Ngaal ni mu waxee léegi nit ñi bu ñuy def dañuy def publiquement parfois sax dañuy woote ba nit dajaloo ñu joxe na joxe naa lii wala naa lii wala def naa lii kon xam nga loolu kon loolu tur lañ wut lu leen siiwal lañ ci lañ lañ ciy wut wala lu leen yóbbu ci kanam te loolu amul njariñ fayu nit kii fayu yàlla moo gën fayu nit à chaque fois kon li ma koy tëjee rek ma maree dëgg la fayu yàlla moo gën bulir ba tax na dañuy dem ba daaru rek di fa ziar sëriñ Abbas Mbacke doomu sëñ Bas Anta Ñeng nga xam ne lépp lu muy def yàlla suñu borom rek moo tax mu di ko def di nitu yàlla nitu yonent bi ku yàlla koo xam ne dara ñoro ko dul alxuraan tonton Ngari da ngay gis koo xamante ne nii day nekk si kër moo xam ci lu mu mën a doon moo xam kër magam la wala kër papaam nekk fa ak famille mais lu mu mën a dem lu fa mën a am rek moom mooy mujj yëg moom mooy mujj dégg wala ka nga xam ne moo nekk ci kër ga yàlla samp ko fa lu mu defal waa kër gi rek bu fa dara amee rek ñëpp ku ne moom ngay tudd bu du woon ak diw bu du woon ak diw est-ce que loolu rafet na ci famille wala ci kër. waaw loolu moom euh, aaday sénégalais la ku yor ñu waxtaane la ku ñàkk ñu la loolu moom di koy sénégalais la yaay doo nga lay dese te yaay yu njëkk yooyu waaye yaay léegi moo njëkk moo la njëkk écarté foofu sax. xaw ma fu mu la juree na lay wax parce que da ngaa yorul waaye xasuloo boppam la xas ndax moom yorul moom la ko xañal la xañ ka jox kee moo leen xañ yéen ñaar ñëpp bu la xasee dalaa yab doom parce que yorul gannaaw da ngeen dimbali ngeen lekk yéen ñaar waru laa ay foo ma topp parce que yaay mbuxu ko loolu moom donc ba tax Sénégal dafa xaw a métti mais gis nga ndeya nit amul lu fayee kenn nit daa yorul kenn ku ne xoolal bi nga juddoo wala bi nga amee doom muy liir rek lu ma ni moom caleçon topp ko ay jooy la fa andi te mun ta sax xoole ma ñu lay tuuf ak a def yëf nga sax ñaari bëñu suuf ñaari bëñu kaw ba yàgg si ñu ñëw lu ne da ñëw ba nga màgg loo man milliardaire bu ñuy suul lan nga gis mu topp ko moo moom ñëpp nuroo perkaal di jullee ku ñàkk ka leen koy jullee ñu ñàkk ñaa lay sang ñu taxaw ni comme yoreel na wax baa ko ko yoreel na wax jàppoo la baaraam mënoo ko yëkkati pourtant ay milliards nga bàyyi say oto ñoo la topp ñu la yóbbu sëg ya amul intervention amul comme fii suuli bu ca président ba àndul policier du fa topp du ca topp gendarme du ca topp ñun doo ngay ñëw suul la mun pare defi lixlaas ci sëg yi intervention pour yàlla baal la yow yaay kan looy def def ko te yàlla tax bi la yàlla jox karaw dalaa tàggu ku wattu neel kan moo nga gis mu wattu neel yeewu naan sama karaw gi ay deux sax da ngay xam kañ lay sax doom ji nga ëmboon sa biir jur ko ngénte ko tuddee ko sa papa tëral ko ci lal bi muy màgg doo gis ba heure lay màgg pourtant yàlla tàgguwu la day xëy tolloog yow am de kon yàlla dafa def sutura yàlla ku muy joxe milliard sax fësalu ko da ngay nekk dara mu yokk mu yokk gis nga coow la coow la bala ngaa xam ni daa war am sutura doo laaj kenn compte bancaire mu la ñaataa ca aw ma ko sax ma ne aw ma compte te na compte xam nga la wax sa waay compte bu jàmm na su koy laaje mais pourquoi ñu bëgg a fësal li ñu def am ñoo xam dañoo bëgg fës dañu ñëw sax fekk nga yor micro ñaar sa waay tudd ma ko tudd ma ci ci bi mais ban njëriñ la am ñu tudd la. ndeyaa ngi nii toog waaw pare te day jug nuyoo nag def nii pour ñu gis ko te lu bët xool làmmiñ tudd ko. te laam laam ñaar lu mu tudd mu yàqu nit yu bari cat leen topp parce que ñoo cat ñoo wut ku leen cat ñoom ndax bëgg a siiw bëgg ñu gis la ban njëriñ la am ndigal ba yàlla yëkkati la ku yàlla yëkkati doo wàcc yàlla bu yëkkatee murit nit mënu koo wàcce mbaa ko ko xëcc yow danga nga daanu kon gis tali moo bëri ci réew mi jëf te yàlla taxul li nga wax noonu nag daa bëri ci kër yi bu ndayaa dee caat ci kër gi yor xaalis ah moom la ñuy wax soxla bu desee gas kàmb nag man lañuy woo man taaw bi kaay gas kàmb gee ñu def ci butitu xar yi yooyu fegataaya balaa gan yee dem moo am di waaye caat moom day nelaw moom yor xaalis moom la ñuy wax soxla yi ko feebar yëpp moom lay tudd loolu nag dafa am boo dama yàlla baal dafa am ay xeetu ñàkk jom yu ci rax bédu fulla ku ne jox ko cër bi ko yàlla jox loolu mooy adduna mais Sénégal bu ñu bàyyi woon ngi sal gis nga maam Marème fa laay jeexale damay dégg ñu naan géej gi jën amutu ci du dëgg maa ko wax fii ci leer du dëgg géej gi ak a bëri jën yàllaa denc jënam parce que dañ koo yeb yàlla yàlla daa yor liy yàlla daa am lu manqué bu nit seen bopp yàlla nit du yàlla yàlla du nit yow la ngay manqué yàlla manqué wul dara géej gi ba mu koy lal tàgguwul kenn liñ ci sotti ci ay jën kenn bu loolu xëy ñu ñëpp lekk kenn ko nekk cinq tonnes jën du jeex yàllaa ko denc ngir meranu parce wax jee bari jën daa manqué ci lu jàmbat suba ngoon yàlla day ci jëli waa Mauritanie dañu daan jën ñoom ndax jàmbatuñu na Chine ñëw France ñëw Allemagne ñëw Amérique ñëw jukki jën yàlla moom jën du bouger ci jën mais dañoo bari wax Sénégal. bëri wax ba tax na ah, yàlla ñu yàlla di defal xéewal yu bari rek te yaatu te yàlla jox ñu lu ñu lekk te mu lew ñu téeméeri junni yoon mais nag da ci am loo xam ne dafa bëri ci senegal ndax da ngay ñëw séq ak sa nit loo xam ne yow ak moom ak yàlla la nga génn déggaat ko ci feneen ak neneen defe naa ne loolu ngistal la te loolu day metti ci xolu doomu aadama ku nekk la nga séq ak sa moroom fexeel mu yem ci yéen ñaar mais nga pare toog ci jotaay ak ah, kii diw maa moom nangam moo sa bopp mais nga yàq ko ba mu yàq te ki nga yàq doomu aadama loolu ci ngistal la bokk yàlla nañ ci yàlla musal ñu dem jëliwaat suñu beneen élément desiwaat fi nga xam te si plateau la man maa ñaa ngi fii ci biir Leral TV seen émission aada ak cosaan ñu fas yéene waxtaane thème bu am solo muy ngistal Papa Lass lan nga ñu mën a wax ci ngistal waaw ginnaaw bi leen nuyoo yéen ñëpp ñu ngi leen di siyaar yéen waa Leral di rafetlu bu baax seen liggéey ngistal nag nekk na loo xamante si nit moo koy def entre nit man damay bëgg lépp lu nit di def rek nga def ko te yàlla tax parce que lépp lu nit di def di ci ngisal doo ci am yàlla doo ci am bi mën nga ci am nit ñi nag waaye doo am yàlla doo ci am yonent bi mhm. waa lépp li def di ci ngistal mën nga ci am nit ñi mais doo ci am yàlla te yaakaar naa nit kii lu muy def am ci yàlla moo gën lan nga mën a wax ci nga xamante ni dañuy def ngir nit ñi te defuñu ngir yàlla. Mhm. xam nga te am na loo xamante ni si boo ko dee jaay nit boo amee xaalis mën na ko jënd waaye boo ko amul du ko jënd te boo dee ngisal am na ñoo xamante ni lépp looy def ci àdduna bu dee lu baax xam nan bon xam nan ko ndax àdduna way neex yàgg way wu naqar yàgg kon lépp lu nit di def war na koo def te yàlla tax def te yàlla tax nag dafa ëpp njariñ parce que doo ci xool nit ñi da li nga xamante ni si moom nga bëgg def te yàlla rek tax li nga xam nag da koy def ngir nit ñi da koy def ngir nit ñi boo toogee ba wéet bopp li nga xam ne lii defoo ko woon ngir yàlla da nga def ngir nit ñi li may wax nit ñi rek mooy lépp lu ñuy def nan ko def te yàlla tax ndax def te yàlla tax moo ëpp njariñ moo ëpp rendement moo ëpp solo fii loo fi def ndax nit ñi da sa bopp ngay nit ñi ngay nax nakate sa bopp ngay nax mag bu tëdd jaaxaanti saw boppam lay tooyal waaye du tooyal kenn nan leen def li ñuy def te yàlla tax te bañ cee def ngir nit ñi parce que def ngir yàlla moo ëpp solo lépp. Mhm. waa Papa Lass kàddu yi am na solo lool yaakaar naa ni sunu éléments yooyu dañuy tàmm di jël mag ñi mais ndaw ñi tamit aussi dafay baax ñuy jël seen xalaat parce que yaakaar naa ni li ñu naan dëgg puso la xale da koy for mag da koy for dëgg ñu ngi lay bàyyi ngay tàggatoo. jërëjëf ginnaaw loolu ñu ngi leen sant di leen gërëm

yar la ak teggi nekk ni koo xam ne kenn la bi ma xamante moom léegi yàggul mais jàmbaar la ndax dëgg yàlla dañ lay ñaan rek yàlla suturaal la may la jàmm li nga bëgg ci sa liggéey boobu yaa ko xam yal na la ko yàlla defar bu baax a baax a baax tonton Ngari dégg nga li mu wax ci ngistal nee na ngistal dafa nekk loo xamante ne du yëfu jullit du yëfu yëfu saxit nag daa baaxul parce yàlla gërëmu ko ah, ku koy def danga ko war a bàyyi wax naa sànq ni lépp lu waaye di def def ko ngir yàlla sa borom même boo jubóowul nit ki te nga gis ni lii muy def nii war nga caa mën a apporter dara mu yokk ko def ko te yàlla tax yàlla fay la fay ko nit ñu yàqu fexeel ba mu defarut yàlla rek tax te bañ bañ caa fésal sa bopp bu ci gis sa bopp def ko te tax yàlla fay yàlla am na fay yàlla du daa ñeme bor dafa am lu muy fay am muy fay kon. ngistal moo rafetul joxe publiquement eh, wax publiquement eh, waaye gis nga de Mouride bi fa amee Papa Dieng problème vraiment damaa taxaw lijjanti ko lijjanti woo dara da nga caa bëgg rek yow ba ngay dem kër Papa Dieng kenn tàgguwu la ba ngay dem kër Mour kenn tàgguwu wax nga ban joxante loxo bàyyi nag yàlla yàlla kontaane ci yow day na mais il faut ñu wax ko ci mbooloo mi pour nit ñi gis mais après man man sama question mooy après ba njëriñ la am quoi. benn njëriñ yàlla nañ ci yàlla musal. kon lépp lu waay di def lépp lu waaye di joxe lépp jëf yi daf ko te yàlla sama borom rek tax yàlla kat maa ngi jaamu sa jaam maa ngi lay jaamu ci sa jaam yi loolu yàlla bëgg yàlla bu ko neexoon bu subaa ñëpp doon ay milliardaire suba ñëpp mais kenn bañ a jàkka ja kenn bañ a église ba ku ne say fi bopp ngay def dund sa dund bopp parce que ku ne looy wutee am nga yëf sa fi bopp. kon su ne ànd leen maa jox ñi lu bari jox ñi lu yam xañ ñii yéen ñi ma jox lu bari di leen gestu gaa yi ci gannaaw tam man ma tax war goo ko jëfe te bañ koo bañ koo fësal mi ngi mel na tey gis koo xam kër gi taalu añ nga taal añ añ ngeen ba desal nga jël bool baag macaat maag ya desoon yan ko gane ko gën a yara ci kër ga ni ko yóbbu kër maam ma dem mu ñëw ni ko xeq ci kër ga la ko jox so bu génn ay xàqataalay def ko wala agsi ci kër gi wax ko ñëpp ku ñëw mu la yow di ay waaye kat nga ceeb bu neex léegi laa ko yóbbu kër maam Marème man payu yàlla nga ci am nit day gëm ya loo def ko de parce que yàllaa ko xañ yàllaa la jox defal li ngeen yàlla rek tax mais Sénégal loolu moom lu ñu war a corriger la commençant ci daara yi alquran yi ci ci école yi ci ak ngir jubbanti ñuy ñëw ëllëg ngir ñu bañ a dugg ci ay doon nit koo xam ne dafay ngistal dafa tasaaroo ci réew mi def te yàlla tax moom amatul baa baretul am na ñu koy def nag am na ñu koy def ba na moo tax ku ci nekk rek soo juree say doom nga fexe def ci ñoom jom def ci ñoom góor góorgóorlu ndax gis naa leen àdduna gis nga biir amul gore tey danga nga ciy def ginaar suba nga def ci soom bi mais bul xool ne naa lekk lu neex wal dara jit ku nekk bañal nit di gàddu desitu añam di la ko indi sa biir kër man loolu bëgguma ko dama koo bañ ba su ma ko déggee sax tontongaari sama xool day tàng as gor da ngay gore gis nga lekkal sa fonde yéyal sa mburu bu wow poñ seel yaa moom sa biir gis nga defam loo xam ne boo ko tàmbalee say doom dañuy ñàkk jom man doo lekk sa añ ba mu des nga di ma jox yax ya doo lekk soo sa yére soo sol sa yére ba sa yére xotteeku ko nga ñaw ko di ma ko jox wala nga sol say dàll ba mu dag nga di ma ko jox damay am ngor gu tool ne su dee sama yére benn yére la ma koy su dee samay dàll ay carax la ma koy sol kon ku ci nekk gëmalal say doom ne ko nit dangay am jom mais bu nangoo topp si ginnaaw kenn lii ñàkkloo jom xale mooy nga añ ba suur jox ma ko la ngay añee ba suur di ma ko jox lu tax mënoo jël bool bu ndaw nga jox ko man gis naa koo xam ne tonton dafa dëkkoon ak koo xam ne dafa néew doole mais bëgg koo dimbali daf koy jaral su waree jël ceeb bi wallaahi dafa jënd satala bu bees satala gu bees tàq la jënd day jël lekk bi sol ko ci satala gi aj ko ci kaw miir bi pour ndaw si ñëw jël ko pour bañ ay doomam gis ceeb boobu muy may dëkkandoom boobu ndax lan bëgg a def ndax yàlla rek tax su koy may ceeb wala café bu koy may sax da koy sotti ci satala gi aj ko ci kaw kooku ñëw ajju ko sotti doomam du ñu xam fan la jógee kooku mooy def te yàlla tax kooku mooy def ngir yàlla mais man du ma nangu mbindeef di jël sa desu ceeb di ma ko may wala nga sol sa ba mu yàqu nga ma koy may nañu moytu loolu. da ngeen ko am doom. ñu war koo ngénte amul yëre yu sol mhm. amul takkaay jëkkëram amul xar mhm. waa koñ bi mhm. dañu organiser wu ku ne cof ci dugubam mel na kuy soqaani ñu daje ci kër gi seen kër am na kuy saaf café ñu soq soq bi wa foofu ko sebeti ko ñoom day araw ko ndeyaa day bokk ci si bi war a sol suba bor ko ci gannaawam maa maram ñëw ay yar yu liiri bokk ko ci gannaawam nday faal andi ceen gaa ngeem war ku ne doo bokk ak bi ngay dugg ci néeg bi bàyyi fa loola ah am ah, yow lu mu may ab sët la jëkkër la wala jabar la liir bi la ñuy wax café mm. ba ko ci njeganaay bi ba lépp correct bu subaa na gis ndaw si sol rek yaa ngi mm-hmm. waaw waaw moom waaw moom di tuwaar kaal kenn xamul fu mu jóge mm-hmm. delloo ba bu jotee moom mooy dem mel na ku yekkale fekk ma ngay delloo mbubb ma ma ngay delloo takkaayam ma ngay delloo yëf ñi waa toog kenn du xam nu mu demee kër gi nga taxal bu guddee moo yeewi xar xar permi dugal xar mi ana Babacar nga ni maa ngi jege ma bu jege mu jàpp ci buum gi mu fay takkaat permi nga yeew sa gétt bu subaa day indi xar mi rek gaa yi ah sa daa yaroon mm-hmm. képp mag ñi moo tax yàlla suturaal li yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla de defal jàmm fu ñu toll rek ñuy góorgóorlu tey sàngante sutura nee naa leen nañ ma bàyyi ci kàddu gi mais ku fen yow la neex ku ci nekk am nga loo denc te buggoo kenn xamal la ko man mii am naa lu ma denc loo xam ne bëgguma kenn xam ko mhm. sama yaay ja kayta maa ngi koy ziyaare bu baax a baax mu yaay ju baax maa ngi koy ziyaare di ziyaare waale sama papa ja ca kër ga ndax tontongaar dafa am lu jafe nga nekk sa papa jiit la mu lay xool comme boot bi xool ay doomam respecté la la muy papa gay gay moolum géej maa ngi lay ziyaar bu baax di la ñaan ñaanal jàmm nee naa la yow bu papa yëpp meloon na yow àdduna neex liñ naan su yàpp yëpp meloon ne res paaka du ci am yoon mais papa gay maa ngi lay ziyaar di la ñaanal yàlla nga dem ba Seex Tuubaa yóbbu la màkk yàlla nga dem ba daaw da yóbbu la màkk ndax yow kenn nga gor nga garmi nga yàlla na yàlla xaare àjjana suñu maam jooju Njuuf maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax ndeyaa tey da nga gis jigéen comme moromam ma ñëw ci yow ni la ndeyaa man dafa am xew bu may dem mais aw ma xaalis damaa bëggoon nga sa yëre bii nga sol nga jël yére bi aal ma ko ñaari fan ñetti fan ñu xuloo nga ne ma yow mi nga xam ne bu du woon ak man keroog ba ngay dem ci xew ma làmbaay ñaaw est-ce que loolu asgoor dina ko def oh maama rem loolu asgoor du ko def mais loolu euh, nekkul ngis ta loolu ñàkk sutura la parce que nit am sutura yow man ak yow bu ñu toogee tënk li ñuy tënk ba pare yow euh, tonton Ngaari warul xam li ñu waxante man ak yow yow waroo ko génne man waruma ko génne kon euh, Ngaari bu si jotee rek yow yaa ko ko wax wala man ma wax ko kon loolu ñàkk sutura laa ko laa ko laa ko jàppe ak ñàkk bàmmeelu biir parce que nit da am sutura yàlla suñu borom moo njëkk suturaal ba pare kon ñun dañoo war a am sutura suñu biir ndax kooku li koo jàpp ba muy ñëw di la àbb yow yàlla mënoon na def place am yow mu dal la ba nga ñëw di ko àbb kon bu la yàlla suturaalee ba doomu aadama ñëw di am lu mu wut ci yow yow jàppal que ni yàlla ni mu la ko mayee mayewu ko ko te mënoon na la ko may mu xañ nga nga dekk place am yaakaar naa ne boo jëlee yow sa bopp teg ko place am rek di nga ko fajal ko génne parce que yow moom li ko dal mën na la dal yow aussi voilà macha allah li ko dal mënoon na laa dal ba tax na murit yaa ngi fu neex ci waroo ma waroo ma tasoo mm. sama yaakaar waroo ma ba tax na nanuy bàyyi di warante nanuy bàyyi di tasante yaakaar na nanuy mm. bëggante soppante comme ni ko Babacar di defee ndax mën nañoo toog fii tey mu def ñu ay muus wala mu def ñu ay kaña ñaawal ñu ba ñu mel ne bukki kon kenn du nawa na bëggoo seetaan émission bi nga xam ne mooy leeral TV leeral point net ñu del jëliwaat beneen élément dellusiwaat fii ci plateau bi te ñëw yaay nuyu nañ la bismillaahi salaamaaleykum maa ngi lay nuyu sama doom sama xarit sama genn wàll di kilifa gi maa ngi lay nuyu di la ziar. tey ñu ngi ci thème bu am solo ci pencu aada cosaan ñu fas yéene waxtaanee lu am solo muy ngistal lan nga ñu mën a wax euh, ci ngistal. maa ngi lay kontaanee sama doom ndax jamono ju ñu toll nii maanaam dëgg moo fi jóge ci ñi ma ko war a wax ñi nga xam ne dëgg da leen soxal am na ñi xam ne dëgg soxalu leen te lu gën a bon nag mooy baat bi nga dugg muy ngistal doomu aadama. sooy waxanteeg nit wala ngay jëflanteeg moom na dëggu ci yow waaye soo bëggee loo soo teewee su borom teewee rafet da dee ñaaw kon loolu amatul lu ci benn li nga xam ne borom dana ko ci mën a lii ndax soo tawee ma wax ci yow lu rafet soo dëddee ma wax ci yow lu neex maa ngi sal te gisal baax ci doomu aadama lislaam da ko tere kon doomu aadama saa su ne mun nay wax li nga xam ne moo ne ci moom wax dëgg gi nag moo fi jóg Euh, li nga wax am na solo mooy wax dëgg moo fi jóg kon wax dëgg yaakaar naa bu fi jógee rek kon lépp lu fi nekk rek ngistal lay doon te yaakaar naa ni ngistal baaxul lan nga mën a wax euh, ñi xamante ni ñoom loolu lañuy ñuy def parce que loolu moo fi bari léegi. dafa am ñi nga xam ne jom ak ngor moom amut soo amul jom amoo ngor ci ngistal ngay dëkk doomu aadama waru jaay jomam waru jaay ngoram ak dignitéem mooy sa carte d'identité soo ko jaayee ñàkk nga lépp te foo romb ñun la lu yoon la. war ngaa raxas der bi sa der ba nga xam ne doomu aadama su la gisee ci wax ci yow rafet ndax maanaam dangaa jur ay doom te am ngay soppe ñi ngay wax sax noonu ñooñu du lu ndax ku la xam du wax ci yow lu ñaaw ku la xamul moo lay gëstu moo tax ñaan dama am noonu te kooku du noonu dalaa xamul waa li mu wax dëgg la nee na ku la xamul moo lay moom moom moo lay def noon ñi la xam duñ la def noon nit balaa nga ko xam nga gëstu ko mu nekk kàddu yoo xamante ne am na am na solo loolu. léegi euh, yaay yaay booy am na ñoo xamante ni dañuy def loo xamante ni comme ça bu ñuy def ci suuf kenn ko xam dañuy bàyyi comme man ma doon def dara rek loo xamante ni baaxul dama koy nëbb léegi boo ñëwee man def loo xamante ni dafa baax te fekk na bi nga wanee ginnaaw defuma woon loolu léegi la lan ngay wax kooku nga xamante ni ñaar rôle lay jouer maanaam. loolu moom doomu aadama su ko rek kooku moom jikko seytaane la yor ndax seytaane mooy am ñaari jukko bi muy indi tey ji ci yow ak bi muy indi ci yow soo bokkut maanaam damaa soxla soo ñëwee ci man li nga ma wax na nekk ci yow li ma lay wax nekk ci yow te ñu tënk ko denc ko léegi maanaam secret moo amatul secret dafa réer li nga may wax ma waxante yow ba mu egg soo dëddee tey ma toog alaaji daal di ñëw ma ni ko ah si sa ñëwoon na sànq nee nangam nee nangam ñu jël wax ñu wili pànd nga ñëw ci man ma ne araam waxuma ko kon moo ko wax ne ñu ñaar xel dana fen waaye làmmiñ du fen laa asafara lam dana fen mais xel du fen kon doomu aadama saa su ne rek nay dëggu soo dëggoo tey dëggal xam nga dëggu wax dëgg dafa neex mais dëggal moo jafe sooy wax dëgg na ngay dëggal soo jëfee dëggal ku ñëw dana xam ne yow mi mooy lii mu nga def moo la war waaye fu ne nii li daloon la jot tubaab bu moon dal mooy wor gi bari na fi loolu kàddu yi am na solo yaay booy ñu lay bàyyi ngay tàggatoo li nga wax lépp am na solo yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ñu ngi lay jaajëfal bu baax kontaan nañ coow ci disponible disponibilité bi ñu accordeel ñu ngi lay bàyyi nga eh, tàggoo. waaw maa leen di jaajëfal di nuyu madame Ndiaye moom nga xam ne moom mooy suñu gérante ba pare woonu dama nga wax ak ñoom maa ngi ko ci nuyu bu baax ak doomu Fane njaay ak eh, sama doomu bopp muy Assa. di nuyu ñëpp gërëm ñëpp sant ñëpp maa ngi jégalu ci kàddu yi waa ci kàddu yi beneen xam ne wax lu ci jub nga xam ne doomu aadama laa ju dëng tamit nga xam ne doomu aadama laa ñu jéggal ma maa ngi jéggal ñëpp na ma ñëpp jéggal am na solo loolu li nga fi wax yëpp am na solo nee lii sunu carte d'identité ñun jullit yi mooy euh, sàmm sa ngor ak sa dignité yaakaar naa ku ko def rek euh, yaakaar naa doo doo mën a gis daal ñu ngi kontaan ci bu baax yaay booy jaaj ñu ngi la jaajëfal jaajëf euh, Ndeya jaajëf tonto Matar ñu lay jaajëfal bu baax a baax di masawu tonto Matar moom defee naa ne fan yii nii moom gars yi war nañ koo geesu bu baax a baax ndax téléphone am dañ koo sàcc ñu tegaat ci sàcc motom bi nga xam ne moom la doon liggéeyee ci fii nga xam te ne mooy leeral TV leeral point net tonton Matar ñuy ñaan ko nga xam ne moo tax sa yaakaar ci sa moto boobu moto boobu yàlla yóbbu sa ay yàlla yóbbu lépp loo xam ne gàllankoor la bu waroon a si yow te yàlla na gën a ubbi say buntu wërsëg ba yàlla may la oto yal na la yàlla may oto te mu gën ci yow ndax defe naa ne kuy jël alalu jàmbur rek dangaa xeeb sa bopp kuy jël alalu jàmbur rek dangaa xeeblu sa famille defe naa nit ki da ngay gëm sa bopp respecté sa bopp mais góor comme yow liggéey ba am alalam yow nga ñëw ne ko doon ña tas yaakaaram xamoo mun nga génn def soog mun nga génn deesi lu ne mun na la ci dal kon defe naa ne bàyyi leen jël alalu jàmbur tonton Matar yal na la yàlla may lu gën jakarta boobu yal na la yàlla may ay iPhone yi iPhone yu bëree bëree bëri ndax ku baax nga ko yaru nga yal na xam ne centre culturel yor fa pension ñu lakkal ko keroog ci suñu festival bi jël ay boolam àbb ko ay bagage am lu ne jël ko ci moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax muy jigéen ju mën góor macha di ku baax koo xam ne ku gëm boppam la tonton Ngari dégg nga li nga xamante ne moom la Yaay Fall wax tey lan nga ñu ci mën a leeral. waaw di ko gërëm moom wax ju baax rek la man ndax ne taalibi la sëñ Issa Diène mook sama baay bi ñoo bokk wasila ñu sama jigéen ju baax na ko yàlla sàmm. mu waxit kàddu yi am solo li nga wax ci Matar it Sénégal moom moo àdduna bindoo noonu sax da cee rawati ñun ñi ko yor ji Jakarta léeg-léeg boo koy gaar seen yàlla naa ko fa fekkaat dafa am ñoo xam ne jël jël seen mbir la aussi seen mbir la te bu buñ ko doon jël liggéeyee ko waaye dañ koy jël jaayaat ko ci ñàkk solo te boo ko tàmmee di nga mës a jël loo xam ne dina diis gan su boobaa ñu tudd la prisonnier politique fekk da ngaa tàmm randali fi jàmbur donc loolu c'est un problème kon Matar yàlla ni ko ñaanal yàlla ko yàlla jox lu gën loola. Euh, mu wax lu am solo ci gistal gistal réew mi wax dëgg yàlla ni ma ko waxee dafa bari quoi franchement dafa bari léeg-léeg euh, ngay wax ak ñun xam ne li muy wax ni gëm ko mais franchement li muy wax ni moom yow da ngay taar sa taar mais xam nga ñu dëgg te da cay antawaat. billaahi wallaahu lazi laa ilaaha illaa hu moo tax ma tax sànq ma la yàlla daf ñoo mere sama borom yàlla yàlla. ñi ko jaaxal mooy Serigne Touba ko jaaxal yàlla maam El Hadj Malick ko jaaxal Cheikh Ibrahima Niass ko jaaxal Cheikh El Kabir ko jaaxal Thierno Mountaga Daha ko jaaxal yàlla ñoo ñu ko jaaxal ci senegal ndax dañ koo jaamu bugguñu dara ndax moom buggul def ci njabootam dara moo tax léeg-léeg mu kaatanu xam nga domp yàlla daf ñu domp mooy de jën yi ne ci géej gi te doo jot jën ñëpp mettitlu ñaan gaa yaa ngay tukki parce que jën amatu fi jën mosu fee jóg wax naa la ko fi ay émission gis ko yor 2 millions ci poche bu nopp banque solo ba rafet rafle ci réew mi la parce que jàmbat bee bari ngistal li bari naa fekk na ciim leen te moo gën a bon loola feet kon ngistal nit day def te yàlla rekk tax ak lu mu mënti doon mais def ngir ñu gis ma def ngir nga gërëm ma def ngir nga yëkkati sama tur amut njariñ parce que nit du yëkkati turu moroom ja baa bu ko defee gënalu ko koo bëgg tiim mu mere la bokk la nit ndey ak ngeen bokk di jàng école ngeen dem examen mu jël premier nga jël sixième ngeen dem examen bac mu génn bac plus dix-neuf plus dix-neuf la am nga am moyenne quatorze wala wala wala wala dix léegi kër gi commencé am fii rek yéen a bokk ndey ak baay nit boo toll foofu nit a mel noonu mais baaxul lépp looy dimbalee nit na yàlla tax looy jëf ci nit na yàlla tax looy wax na yàlla tax parce que payug yàlla du fii am nañu jiitu ñun ñoo ciy topp taw dama ni par force ku mu neex ak ku mu naqari daanu dem ca kanamu yàlla kenn ku ne mu wéet ak yow ba nga yaakaar yow rek la bind da nga wax alal ji nga yoroon fu mu foo ko def eh. la nga wax foo ko teg yàlla ndagam da nga am temps suma ak kenn ku ne nag dana la laaj François Mitterrand Ablaye Wade Macky Sall Ousmane Sonko ngaa rek ñëppay toog ci kanama mu consulté leen kenn ak kenn soo fekkee ak atta nga jannatu firdaws su fekkee attoo naari jahannama yàlla dafa maandu kon nag kenn ko da nga préparé bala ngaa dem nañ waaj te kat jot na de bunt yëpp dañu ubbi macha allah nañu wàcc eh, jot na ba tax na yàlla na ñu fekk si lu baax rek ndax di defe naa ne ku dund ku ne dinga nga dee luy tooy dina wow kon yàlla ñu yàlla defal heure bu ñuy jël suñu ruu yi rek mu fekk ñu ci lu baax a baax ba boole ñu ci xeetu Seydina Muhammad Rasulullah ndeyaa bu njëkk ba eh, may kii nuñ ko ci waxatee eh, dangay gis nit muy sëy sëyam neex la na nañuy defee doy la maanaam mu suturaa jëkkëram jàppale jëkkëram doy la ba tax nga ne ko man de sama doom ji yow laa ko ndayalee ndax ci ay jukkoom ay melokaanam mais tey defe naa ne ndayalay léegi si ngistal la ndayalay léegi si xaalis la ndax lan da ngay ñëw làng ñan maa fi joxe lii maa fi def lee mais ndayale bu njëkk ba leen na taxoon da ngay gis kuy sëy nekk jàmbaar lool nekk gor nekk gar mi suturaal jëkkëram uuf ay njabootam ay qualité tax nga ndayalee ko sa doom waaw maam Marème ndey la léegi man sama gis-gis man na ma jàpp ni intérêt la xam nga ngistal bu ngistal la moo ngistal bu nga ko waxee il faut intérêt dina ci dugg parce que intérêt bi mooy dangay ngay def pour am ci leneen da ngay def am leneen lu lalu ci kaw moo tax ngistal ak intérêt ñoom ñaar ñoo ñoo liyee ñoom ñoo ànd parce que bu njëkk comme ni nga ko waxee da ngay xool nit jikkoom doy la jikko maam Marème doy la mu neex la nga bëgg qualité yooyu sa doom roy ko nga jël ko doy la ko sa doom kon pour pour pour moo jël moom jikko bi mu am ci moom mu def ko ci sa doom mu dolli ko mu nekk ay qualité yu baax mais léegi defatuñu loolu dañ koy def pour ndaye lay léegi su ma la joxee 10 000 100 nga may indi kon xam nga loolu déjà intérêt la parce que teg nga ci leneen lépp nag ci ngistal la ak bëgg gis leen ma ak bëgg yëkkati sa bopp maa def lii maa def lii te yaakaar naa ni léegi loolu amul sens jéem a roy jikko yu baax moo gën di jéem a di jéem a teg intérêt parce que intérêt teg intérêt baax na baaxul baax na ci ci ci am na côté bu mu baaxee am na côté bu mu baaxul mais soo defalee nit dara bëgg bëggaat ci leneen bëgg ci teg intérêt loolu baaxul te amul sens Mame Marème macha allah loolu amul sens li tax amul sens mooy gis nga euh, euh, junni yooyu nga wax ñu koy joxe ay gura la daan doon dañ naan doomu tonton Ngaari de indil nañ ko gura tonton jël ca gura ga ëmb jox ma ëmb jox la yow ndax lan yor na doomam ñuy ñaan ah ngaari kii sa doom la yàlla na ko yàlla may boroom kër gura googu moom la ñuy joxe léegi moom lañ soppi muy xaalis di joxe ay fukki junni ñaar fukki junni tey dangay ndayalee ni sax mu wéef la ko wala mu dugal la ko orange moo ne nga ne lu tax mu jox ma ko war naa ñëw ñu jàkkaarloo fii ba ndokk ndokkule am ci ak nangam ak sàngam foofu yàlla amatu fa yonent bi amatu fa sutura amatu fa xaawante moo fa am ndax parensaa yi nga gis gor goo xam ne dina am ku mu dendal koo xamante ne nii moom nga waroon a ndayale sa doom jooju bëgg ngistal xeeb nga ko ndax kooku du borom tur du borom daraja du kenn ku ñuy tudd fenn kon defe naa ne nañuy bàyyiwaat suñu xel bu baax a baax te xam ne ku xeeb sa mbokk mbokk jàmbur ngay naw te bëri na fi ñoo xam ne tey ñu ngi joxe seen doom si àll bi kañ koy jox mérito wu ko de am na koo xam ne mu ngi ci biir kër gi kooku moo ko moom tonton eh, eh, tonton Ngari tey boo ñu doon wax li nga xamante ne mooy solution ngistal lan ngeen ci mën a wax. solution ngistal kay mooy bañ koo def bañ a ngistal daal xam nga li may wax ñun doon fii dëkkul kullu nafsin zaa'iqatul mawt par force moo tax dafa am yenn yoo xam ne jarul ji yàggal mu tëddee quoi moo sa doon rendez-vous yemal am point final après ku ne lim gauche par force jàmm daa am li ngeen wax léegi loolu moo tardé Sénégal ak jigéen ñi mënuma démarré junni di góor góorgóorlu ba am un million cinq cent ñu ni ndan laa ndayele kumba nga dajale un million cinq cent yaag ku ne andi kooka jël junni jox ndeyaa léegi junni bi boo calculer dana def defe naa su ma juubul cinquante mille carte la c'est-à-dire loterie la xaram daa bari parce que mënoo jox papa Dieng cent franc di xaar mille franc la ku am ful mooy dama ci lu bokk boo ma ko joxee man la jéggal naa ko bu njëkk dañ daan jox ndey parce que yaay ndeyam mooy ña ay wujju géen maam ma ne am na doom toll na ci sëy mënu ko santaayee nga ne parce que mooy sa tante mooy res rek takk gaag ya ca war a am ak waral baag jox bàjjen mu yóbbu yooyu dafa rafetoon noona góor a gi siiwal sëy la ku ne nga ngaddu jox ko ah yow ndey kumba lañ maye de Babacar lañ ko may ngir Papa Dieng ma doon bëgg baax ngaari ma bëggoon baax parce que may nañ ko Papa Dieng siiwal gu ànd ak sutura la woon looloo warul góor gi waa góor ak lan ñu ne góor maye la maye nañ lañ ko may ñu bëgg ñu bàyyi. mais mais bu demee ba transféré ko eh, mu doon ay kartukaay yi ku ne di di di lijjanti ndeyale magale baj magale c'est c'est quoi amatul njëriñ c'est-à-dire loolu moo tardé Sénégal munoo góor-góor di liggéey ba am dara ni jamono naqaree nu tudd la ab bis nga yoru lépp joxe ko fa desaat ni réew mi neexul réew mi neexoon na yaa yàq sam réew kon nag dañoo solution yi mooy ngistal baaxul lu waay di wax. lu waay di def ak lu mu ca mën a doon def ko ngir sama borom yàlla borom bët bu rëy bi gis la nit ñi amul solo nit ñi moom seen problème soo doxee dox nga soo doxul doxoo point final soo joxe ñu lay tag nga ñàkk ñu bàyyi la bis bu ne ma wax ko ci mañang fay nii ba muy doon maire ñëpp a ko topp muy rey nag yi këram ñu lekk yàpp mu ngénteel ñi takkal ñi jabar yóbbu ñuy France yóbbu ñi Gambie ñu liggéey dëkk bépp neex ker ba mu wàccee maire ko gay bay ñaara des ak moom muy Maxime Diop ndem si yàlla yàlla ko yàlla yem jeexee Ousmane rappeur ñes nañ ñëpp bàyyi ne mañan fi Aminata man dong ko tudd ci télé rajo yi dimbali na ku ne Moustapha Diop na waaj fan it ñi ngi koy xalab gis gisatuñ ko ah Diop de moom nangam ak nangam nit a gore di du suur booy joxe yawa saa boo croisé la bara dootul yow nit ñi la nit ñi waaj ba tax na nañu waaj neen defe naa ne nee nañ kóllëre ginnaaw lay féete ba tax na sa nitu démb bul ko bàyyi bu dara tax nga bàyyi ko alal bu mu taxee nga soppee ko defe ne daa fekkoon ne yow gore woo ndax nee nañ doomu aadama bi nit ki li muy gënee moroomam buy sangu du koy summi te li ngay bëggee sa morom ak li nga koy toppee même bu xaalis ba demee tamit jàmm ko te yàlla tax te nga xam ne kat fii nii yàlla mayewu daf la aal suba da koy jël jox ko keneen kon ku ci nekk bàyyi sa xel bu baax a baax a baax ci li ngay def ndayaa dangay gis koo xam ne day ndayale doomam ndayale ko téeméer ku ne mu jox la te kami ndayale est-ce que xam nga li ci gën a garaaw mooy tey di koo xam ne doom ji xamul sax ki nga ko ndayalee xale bi nga xam ne moom nga ndayalee ndayaa xamul ne ndayaa mi lañ ko ndayalee musul yëgate téléphone ko ne ko tàndayaa na nga def ndayaa rey ci boppam sonal jëkkëram sonal ay papaam jox leen ma lii jox leen ma laa est-ce que loolu Euh, loolu rafetul maam Marème mooy intérêt bi ma la wax rek buñ ci lalee intérêt xale bi ñuy ndayale sax du xam kat lañ ko ndayalee yaay ji ndayale moom l'essentiel mooy moom na xaalis bi ñëw moom li muy joxe nañ ko ko dubleel na xaalis bi ñëw te buñ ko koy joxee buñ ko koy jox dafay bëgg jox ko publiquement ñëpp toog ñu ni diw moo joxe lii diw moo joxe lii moom moom li ko yitteel mooy xaalis bi muy ñëw ci moom mooy mooy intérêt bi ma la wax ba ma la wax rek moom soxlawul doom ji xam kan la ko ndayaleel soxlawul doom ji xam kan mooy yaayam kan lay topp bu amee problème kan la war a waxal kan la war a def référence kan lañ ko booleel du ko xam yaay ji moom intérêt mooy xaalis bi muy topp te loolu yaakaar naa ne amul sens nit ay qualité nga koy jàppee mais yaakaar naa doo ko jàppee xaalis parce que boo demee bay ndayale sa doom rek ki nga koy ndayale man sama xalaat bu gàtt jikkoom war na la neex nga bëgg sa doom jël jël jikko yooyu bu amee problème dem ci moom bu amee problème néegu sëyam dem ci moom nii mooy sama yaay moom lañ ma ndayalee mu jox ko ay conseil gindi ko wax ak moom mu topp conseil yooyu mais yaakaar naa topp xaas la que xaas bi day jeex te te xalaat yi xel beeg xalaat bi ak euh, digle yu baax yi loolu du mës a jeex ma bare léegi solution yi lan la soxna Ndeye Yaye. waa solution yi mooy li may wax mooy nañu dëggu rek parce que gis nga boo dëggoo doo ngistal nit ku ngistal ku koy def ku nekk rek naafeq la. parce que naafeq moo mën a jouer rôle bu nekk moo mën a mel nii tey bu subaa mu mel nii mais fekkente ni yow da nga dëggu am looy bañ yaakaar naa ni doo doo doo ngistal ba pare nga gëm yàlla teg si xam ne li ngay def nga seetal ko yàlla suñu borom parce nit mënalul nit dara nit ki ngay may tey ëllëg mu tudd la fi wala mu wax la fi boo nee ba amato dalay bàyyi comme ko waxee kon euh, booy def lu baax nga ko yàlla suñu borom moo gën que amul sens parce la ñu futooy rek dañ fay tag seen intérêt bopp la ñuy topp waaw wax ji am na solo lool xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo léegi ndax dafa am suñu mhm. benn gan boo xam ne mu ngi ñuy xaar fii muy Papa Dieng war koo dalal ci programme am Ndeya lan ngay tàggatoo. waaw Mame Marème maa ngi amoon amoon mbégte contentement partagé ak yéen émission bi. Euh, di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek euh, mu nekk loo xamante ni lu luy lu ñuy jëriñ la ñun ak ñi ñuy seetaan di di euh, gërëm sama tata bi nekk Thiès Mbaye ak madame Diop moom day teewul émission bi di ko taada benn yoon. di jaar tamit aussi papa papa Dieng mi nga xamante ni moo war a toog fii moom tamit di leen ñaanal seen final bi ñu jub incha allah le 3 décembre. yàlla na leen yàlla suñu borom may ndam bañu ñëw fekk ko fi Louga waa jërëjëf euh, soxna Ndaya mi nga xamante ne moom la ñuy defandool émission bi dimanche bu jot fii mais tey nag dañu fee am gan boo xamante ne muy Papa nekk ci groupe ngéwél gi ñu am benn compétition bu ñuy def ca Ndakaaru Njaay dem ba nekk ci final ñuy ñaan final boobu nga xamante ne moom lañ war a jóge fii dem Dakar def ko yal na leen ci yàlla may ndam ndax seen ndam mooy ndamu Louga seen ndam mooy lu ndamu Sénégal ndax ndam bépp ci Sénégal lay nekkaat ndax nee naa leen Dakar ak Louga benn lañu Dakar ak Thiès benn lañ Dakar ak Kaolack benn lañu kon defe naa ne Louga ak fépp nag ñooyam ñuy ñaan ndam lii yàlla na ko yàlla jox ki mu gën ci moom yàlla na ko yàlla seddal ci àdduna bi te mu nekk wërsëg tonton Ngari dalalal ki nga xamante ne mooy Papa Dieng te boo amee ay question yoo ko posé rek bisimilah Papa Dieng a ngi noonu. waaw jërëjëf euh, soxna Marème Papa Dieng ngi koy nuyu euh, di ko ziar bu baax di rafetlu teewaayam ci biir studio bi ci Leral TV di doomi dëkk bi créé noo xam ne mu groupe bu am solo di ndigal Africa Rythme groupe de percussion bu am solo jëwal bu tëggee wàcc na ah, te surtout tëggin bu baax it nag faf kon li leen yàlla tombale muy final boo xam ne mooy seen premier acte ci final ñu tudd ko Doudou Ndiaye Coumba Rose ñoom yet ci euh, ndam yàlla na yàlla jox leen ko euh, mu jig leen te sedd yi te ubbi bépp ndam boo xam ne seen kanam mm-hmm. tan bokk ko ñi leen ko yéene ñëpp ñu koy dalal ak merci beaucoup euh, Papa Diack euh, ñu ngi lay nuyu fi nga xam te ne mooy Leral TV leeral point émission aada ak cosaan ñu lay laaj tey Papa Diack lan mooy sa mébét ginnaaw bi nga nuyoowee ba pare. waaw ah, salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Louga sama dëkk ah, di nuyu nag euh, sama père Ngari parce que wax dëgg yàlla wax ji rafet na trop te moom li man du ma ne gulet ci moom parce que. maanaam heure bu ma toog moom ci lu mel nii rek la ñuy wax waaw yow it yow it ma lay nuyu bu baax di la di la di kontaan ci yow aussi tamit parce que émission bi maanaam ku ne koy seetaan ah dama ni eh, eh, eh, bu la neexoon nga ni Papa Dieng du ma ko fi invité mais maa ngi kontaan ci yow di kontaan ci Mouride parce que fi mu jàpp neex na trop te depuis ma commencé ba léegi bàyyiwul ah di kontaan ci Ndaya mi nga xam ne moom moo jug léegi. Ah, si di sama jigéen suma xarit ah, ñu bokk di liggéey moom it maanaam di nuyu tamit Babacar suma xarit parce que man ak moom daanaka ñoo màggandoo et ñoo fowandoo mm-hmm. waaw di kontaan si télé bi tamit. kon daal ñëpp daal jërëjëf euh, jërëjëf Papa Dieng yooyu bi am na solo loolu xanaa ñuy dellu di la ñaanalaat rek di ñaan jàmbaar yi ci waa Louga qualité yi nekk si Louga jàmbaar yi fi nekk muy ku ci mel ne Papa Madior ak ngéwal ga muy waa kër ñoom Alsaan Camara ak képp koo xamante ne yaa ngi fii ba ci waa kër Mbay Fall rek ñu ngi leen di ziyaare bu baax di leen ñaanal jàmm tey boo ñu waxoon tey nan ngeen di préparation seen préparation ci final bu tey waaw ñoo ngi préparé nag final bu mag ah, parce que dañoo bokkoon ci benn concours boo xam ni mu nekk euh, mu tudd euh, Grand Prix du Ndiaye Coumba Rose ñu ko doon defee ca dakaar léegi nag euh, ñu commencé woon ko le 4 octobre bële ñu ñu boole kook maanaam région Sénégal yëpp waaw muy concours bu mag a mag a mag léegi ñu nekkoon ci di rampe di xuus di rampe ba yàlla def ñu egg final ñu war ko joué nag le 3 décembre au Grand Théâtre waaw incha allah ñuy ñaan yàlla nañ ko fekkee jàmm ak salaam te rafet fekkin tonton Ngari bu dee am nga loo ko ci bëgg laaj rek. waaw li ma ci euh, bi moom euh, dafa laaj ci ay ci Louga ak fu mu ca doon ngir dem jàppale ji yi dafa laaj dem te ku ni Ndakaaru dem Ndakaaru euh, loolu lépp di ay moyens yoo xam ni war nañ koo am ak préparation. Euh, di wax ni yan kàddu nga yëkkati wax ko kilifa yi ak ñi nga xam ni ñu lay déglu ak des bonnes volontés yoo xam ni war nañu taxaw euh, ci njàmbur ngir jàppale doomi njàmbur ci la nga xam ni ñu koy wuti ñu am ko ndax yéen a ngi dem def démarche yooyu. am na solo parce que concours bi ah, dafa am dafa am euh, yoo ci yoo xamante ne si dafay maye ay points yu bare bare bare rawatina li nga tudd léegi muy côté supporter day marqué point côté tenue côté ma maanaam placement de chaine Ah, côté tëgg bi côté ambiance loolu lépp day marqué point te tamit nag may lancé appel waa Louga yëpp nag ni leen seen i doom ñooy dem concours grand théâtre parce que li Père wax noonu lu am la ndaxte sunu demi-finale bi ñu demee daanaka yóbbaale ay supporters te tamit nag li waral sax ah, sunu poule ñu jël fa deuxième mooy yóbbuwuñu ay supporters moo tax ñu jël fa deuxième. xam nga mais nag bu bu ne woon ay supporters premier la ñu la ñu jël. Mm-hmm. ndaxte Louga moom ku ne xam na ko ci tëgg. Mm-hmm. ku ne xam na ko ci aar. Mm-hmm. Louga maanaam mësul des ginnaaw fépp fépp bu dem jël trophée ba indi ko. waaw ñàkk euh, supporter boobu noonu tey boo ñu doon wax lan moo war a ñàkk supporter bi ci lan la jógee. waaw ci ñàkk supporter bi nag mooy nag di dem ci suñu autorité di wax te te nag wuyu wuñu. c'est vrai que nit ki. boo jógee compétition ñu jox la ay bloc ñu ne ne la léegi dangay jaay bloc gi ngir nga jox ko say supporters nga luwe ay biis ñu ñëw xam nga ñun ñi ñun ñun ñi am amuñu moyen boobu. bu fekkoon ni Père Ngary am na ko moom mi nga xam ni acteur culturel la mën na koo def ci ci xaalisam xam ni lii li li ko ko li ko may xaalis boobu ci loo koy defar xam nga mais nag ñu lancé appel daal sunu mbokk politiciens yi c'est parce que. gis nga am réew mënul dem sans culture xam nga réew mu amul culture du dox du dem parce que culture mooy jàmm te jàmm moo baax ci réew léegi nag euh, ñu ngi lancé appel parce que li ñu dal keroog la ñuy bañ mu dal ñu parce que di dem kenn topp la mi ngi mel ni rek buur buy dem te amul te moom a ànd ko di dagam mhm. bu yegg ñu koy faat xam nga léegi nag ah, problème bi daal mooy loolu suñuy euh, suñuy autorité nañ ñu wuyu xam nga nañ ñu wuyu te jox ñu nopp te xam ne lii ñu lii ñu lii ñu doxi du Papa Dieng du ngaar Ngaari du kenn Louga la xam nga Louga la ñuy doxalee. mais Papa Dieng est-ce que tamit nga yaakaar ne ngeen jug ngeen dem ci ñi nga xamante ne dañ ne bay ci sa weyi tànk ku ci mel ne Moustapha Diop ku ci mel ne Mamour Diallo est-ce que jug ngeen dem ci seen kër yi. fekk leen fa wax leen li ngeen naan ndax dafa am nit ñoo xam ne suñu déggee ngay wax te ñëwoo ci ñoom wala joxoo leen carte du ñu ñëw mais est-ce ngeen wala yónnee ngeen fa. xam nga ku ci mel ne Moustapha Diop dëgg la mooy maire Louga ñun ñëpp ci d'accord parce que ñun ñëpp ku bañ ku nangu moom moo la jiite. demi demi kii bi final bi yëg na ko. yëg na ko ba woote ni dinaa leen fekk grand théâtre xam nga gisuñu ko. ñu toog fa guddee fa trop toog ba toog ba benn heure yi tax xam nga léegi réew dëkk bi léegi kenn oto dootu dawati guddi xam nga ñu am ci waan bi ay ay. Ah, bagage yoo xam te ne si kenn kenn xamul la xam nga bi yoon ñoom ñëpp ko yëg Tapha Diop keroog bi fi ñëwee gis nañ ko gis nañ maanaam ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ko topp xam nga autorité yi nekk Louga yëpp ñoo ngi lancé message démb rek la ñu dem ci mberi si la conseil de départemental gis nañ leen waxtaan nañ ak ñoom xam nga dem nañ préfet tey gis nañ ko war nañoo dem ci gouverneur xam nga ñoo maanaam daal ñu ngi dox ay jéego jéego yu bëri bëri da dem nañ tamit maire yi wax nañ ko waa maire yi wax nañ ko monsieur le maire Arka xam nga ngir mu jàpp ci maanaam daal ñoom ñëpp yëg nañ ko xam na nañu jour bi xam nañ tamit groupe bi dem xam nañ tamit lan la ñuy wuti kon ñoom liñ naan daal ñoom ci ñoom daal la la des mais nag des desu ci ñun ndax ñu lépp lu ñu war rek def nañ ko waaw léeg-léeg nag ñu ngi toog di xaar léegi eh, li ma eh, bëggoon a laaj mooy ndax yéen da ngeen a teg ay oto yu war a dem ci gratuit encore bie yi nga xam ne moom la kat moom la ñu war a duggee biir grand théâtre ndax yooyu yëpp jàppandi na ndax mun nga woon nit mu ñëw bëgg laa supporter mais amul xaalis bu mu paasee dem aller-retour ak la muy lekkal boppam ci yoon mi ndax xam nga ne ku jóge Louga gii dem Dakar balaa ngay dugg di nga am loo def surtout rawatina ak njóobeen yi est-ce que yooyu yëpp lu ngeen pare la. waaw dëgg la loolu yëpp maanaam pareeguñ ko. parce que ticket yi ñu yi ñu yi ñu jox maanaam képp ku jënd ticket bu 3000 wala nga jënd ticket ticket bu mille ñu ñoo lay res maanaam transport aller ak retour xam nga bus yi mais nag tant que ticket yi jaay ñu ko du mën weeru ci ci ci ay bus waaw il faut suñu autorité tamit jàpp lañu teg ñu loxo parce que wax wax dëgg yàlla kenn newul nag liggéeyul mais nag li ñuy def ci yeneen yëf yi nan ko def ci aar bi xam nga nawetaan yaa ngi gis nga nawetaan liñ ciy def ci ay millions kenn xamul nu mu toll xam nga sport bi liñ ciy def ci ay millions kenn xamul nu mu toll mais daal sunu culture bi daal ñun maanaam daal man moo moo ma jaaxal ba léegi nii lan moo lan moo tax autorité yi maanaam kenn daal laa mas xam ne ah taxawoon na ci dimbali maanaam ah, ñi nekk ci aar bi muy monsieur le maire Mañang Faye bi mu fi nekkee wax dëgg yàlla. doon na jàppale ay nit di leen yóbbu Europe artistes si masul seetaan kenn dégg nga sunu yaay Aminata Mbengue Ndiaye aussi mi ngi di mi ngi jàppale artistes yi mi ngi leen di gestu su parce que gisante moom moo jafe rek mais nii bu yàlla dogaloon ñu gis ko tey rek sunu aajo faju macha allah bu yàlla dogaloon ñu gis ko tey rek suñu aajo day daal di faju ba tax na autorité yi nga xamante ne ñoo nekk biir Louga ñu ngi leen di wax ne leen Louga ñun ñoo ko moom ndam li ndamu Louga la ñuy ñaan yàlla na fi ñëw si jàmm ba ñu feete ko mais nag. dañ ne feccu liir bu neexee yaay jaa jàpp ca mbagg yi te mbagg yi mooy autorité yi yéen yéen a war a jàpp ci suñuy mbagg yéen a ñu war a jàppale commencement ko ci Moustapha Diop maire de Louga njóobeen bi defal te yàlla tax dimbali ñi nga xamante ne sa dëkk la nekk ndax buñ nee Louga rek ne Moustapha Diop te Moustapha Diop defe naa ne fii nga dëkk kon defe naa loo mën a def feneen tamit defal fii ci dëkk bi xaw ma nag ci yow la ndax parañsaa yi du nekk ci moom te ñu ko wër lay doon wala nga yóbbante yóbbante ba du yegg xam ne yaa nekk Louga yow lañ fi teg nga nekk fi suñu Macky Sall suñu président kon jàppaleel ñi nga xamante ne ñoo war a dem defi ji final muy fecca Ndakaaru Njaay ndax dafa am loo xam ne xaalis moo koy def te gis nga kii góor da nga koy may loxo mu jub kon Moustapha jóob dimbali nii te yàlla tax mbiri si la jàpp ci muy ki nga xamante ne nii moo nekk fii ku mën a doon rek ñu ngi lay wax nga jàppale leen te yàlla tax ñu dem Dakar jëli ndam li indi ko Louga ndax defe naa ne Louga kat ndam yàgg na fee ñëw tey jii ku xool gaar bee na mel nga xam ne Louga yàgg na am ndam yàgg naa nekk ci loo xamante ne bànneex la tonton Ngari lan ngay wax ci loolu. li mooy euh, conseil laa leen di acteurs culturels Louga yi ñoo jàppalante wu bu amoon solidarité yi gars yi kenn fi am autorité day ça passe dem bu leen neexee daañu dem bu leen neexul dañuy dem les artistes dañuy resté si ñoom kenn yo kenn yoru leen salaire kon bu sa doomu dëkk jugee ngir wuti ndam pour xaar sa ñu lay accompagner ñoom ñu la koy wax yow boo ko dëgg rek war nga leen ci sens fi ngeen toll. ci saa parce que le maire mooy le premier magistrat de la ville man damaa dëggul ay dañ ko koo waxul ak ko pourtant bu waa waa mexe bu xewle woon bu def ci 4 millions ba noppi dem teewu ca kon xam nga Louga problème bi mooy euh, dañoo laisser les choses en rade dañu la bàyyi en rade ay at si jubóo wunu non du question jubóo même bu nu xuloo seen parce que ñun sunu xuloo xuloo demaguñ ba ca kanam Macky Sall di fa saagante ndey ñun defaguñ ko te am na ci ñoom dem nañ ba kon ñun defaguñu ko kon suñu xóol suñu biir la yem kon su sa doomu jëkk jugee ngir wuti ndam soo ko déggee war ngaa jug buñ la ko dégtale sax war ngaa jug na ko fi ngeen toll parce que tey jii bu ñu demoon jël ndam la ñoo ñooy jiitu fii parce que ay récupérateur lañu bu ne waa Ngéwal mu gagné nañu ca saa si ñu dem grand théâtre car naan naan damaa newoon ci réunion moo xam damaa naroon ñëw c'est pas vrai xam nañu leen li ko wutee tuur mais ma li ma leen di conseil acteur culturel ñoo war a ñëw solidarité ci ñoom dem ca bis ba ñëpp dem ku ne bàyyi sa soxla ngir bis booba mais su ngeen jugee fii dem leen ci roxee jaw mii mu woo bàjj aminte ci seen kanam ngeen wax ko seen problème man day ba may festival moo moo ma soqali man ma mën a festival man jour ca la waa kër sa maam Birama Sene doogu dikk noddan ci ma du ñoom de boo leen yaakaar boo def dara parce ñoom politique moo rax si ndeysaan dafa rax si ñoom ba te mënuñoo politique ndeysaan mënuñu kon su ngeen jugee fii dem nañ ca Aminata Mbengue Xaali mooy dem nañ ca Rokhaya Diaw ni ko problème bi nu am mooy nangam ak nangam mbokk bàjjen ñu toog barke borom toog ba ngeen faa jugee moom mu lijjanti problème boobu. Mm-hmm. ndees nag man xale bu leen waaye sama yoon daa néewuti ñoom artiste yeeg nañ jóg kenn ku ne bu doon ñaari bee nga jënd ko jour si dem taxaw te parce que bu nga daan nag nam dama ñëpp mais man su ma xewlee du ma gis kenn man ñii damay damay xewle di artistes yi ku ne jëm sa gauche du tee ma def ko. kon du ñëw mais fexe leen ba leen yóbbu ci final bi na fexe ba ngeen jël ndam la ku sotti am borom. yal na yàlla may leen ndam. mu sedd guy ca ngeen gën sax bàkko mais bu ngeen leen xaaree ñii suñu autorité yi. yaa du ngeen dem fenn gouverneur bi daal bëgg na ko culture moom. jigéen la waaye ku bëgg culture la man bi xew xewle dafa dem ba ñëw am réunion pour gouvernance bi. woo préfet ne ko teew teewlu ma fa. macha kon dem leen ca moom toog ne ko problème bi la am. comme leen mën a woo woo leen ñu jàppale leen ci. Mhm. mais ñeneen ñi bu ngeen basé ci yoon ah. masala ba tax na tonton Ngari wax naa lu am solo kon nag dañuy daal di wax rek ki nga xam ne mooy gouverneur bi ki nga xam ne mooy yaay ki nga xamante ne mooy lépp. yow yaa nekk ci biir dëkk bi ñu lay ñaan nga dimbali ñu te yàlla rek tax jàppaleel ñu suñu mag yi jàppaleel ñu suñu rakk yi nga xam ne ñoo war a dem ndakaaru Njaay am lu ñuy xëccoo ji ñuy ñaan yàlla na ko yàlla indi ci Louga bi yow yaay nga lépp nga ndax bu ñu nee gouverneur Louga jigéen la rek kooku defe naa ne yaay nga te yaay dafa am yërmande kon ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu te yàlla tax ndax ñun dañoo bëgg Louga ba bu ñu ciy wax sax suñu xool day neex ngir yàlla ak yonent bi dimbali leen ñii ndaxte ay oto du caaxaan de lu mu dee dee di nga teg ñaari bis lu mu dee dee oto yooyu di nga ci def 200000 aller-retour ñu war a toog xaar leen ndax ku ne xam na ne Ndakaaru Njaay dafa bëri ay njóobeen rawatinaa nga dem fa guddi jot xamoo foo jëm day xaw a doy waar kon jàppale leen ñu si oto jàppale ñu ci ay ndox yu ñuy naan ay ay lekk ak naan ndaxte defe naa ne kat balaa ngaa mën a tàccu sa biir day fees de balaa nga mën a yuuxu sa biir day fees kon <laughs> kon defe naa ne jàppale leen ñu ngir yàlla ak yenant bi ci lii nga xam ne ñu ngi koy doog a def yàlla may ñu ci ndam ndax léegi bi Papa Dieng ne ñoo waroon a jël première mais ñàkk ay supporters la billahi wallahi barke Mouhamed sama yaram dafa daw. ndaxte. ñoom rek ñoom supporter waaw ndax tonton nga dafa métti bu dee Babacar ma dëkk ngay xoox nag dañ ko supporter nag moom. Mhm. mooy bi sànq. Mhm. te di ngisal ngisal <laughs> waaw dëkk bi ñu ko jàppale. Eh, dafa métti bi nga waxee loolu sama yaram bi dafa daw ndax ku nekk boo sañoon foo toog di góorgóorlu sa mbokk fekk dafa fa may la doole keroog bi nga duggee centre culturel defe naa ne yaram yu bari daw nañ ku ci nekk ku ne yëngatu nga ku mën fecc nga ku mënul fecc nga nga ndax lan neex ga ak dal ga kon ñu ngi lay ñaan yow mi nga xam te ne yaay gouverneur yow mi nga xam ne yaay préfet te préfet gis nañ ko xam nañ ko bu baax ñu ngi dégganteeg moom muy ku baax ku yaru ndax si festival bi lañ xamante ñu ngi lay ñaan nga jàpp ci bu baax a baax a baax loo mën ak képp koo xam ne yaa ngi Louga rek jàppal ci li nga xamante ne mooy concours bi nga xam ne la ñuy def waaw Coro Ndiaye Jonn waa ñëwoon moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ñaan daal li ngeen ñu dimbali te yàlla tax ñu leen jëli ndam li indi ko Louga loo gi xeexe ko ci dëkku Baye Jili Mbay bi dëkku sëñ Sambay dëkk sëñ Thierno Mountaga Tall dëkk sëñ Abbas Sall ñu ñaan kilifa yooyu nekk ci Louga ngeen ñaanal ñu te yàlla rek tax ndam lii ñuy xëccoo yàlla nañu ko yàlla may waaw li may li may wax rek li nga wax sànq ci ci kii yooyu biis yooyu xam nga li tax nag Diourbel Diourbel man seen seen bi gisuma ko mais man Père ku ko naw laa Diourbel c'est que sept biis la may booy yi sept biis ñu ñu yeb ko ba mu fees dell xam nga te Diourbel ak Ndakaaru sori na soriwul xam nga Louga Ndakaaru sori na sori na soriwul mu may leen lu tolloog sept bus ñu ñëw grand théâtre ah ambiance beek yooyu noonu xam nga loolu daal man man bi ma bi ma fa jógee daal man damaa damaa sax waaru xam nga sa sa parce que nan ngay amee say doom xam nga ñuy góorgóorlu ah ngir bëgg aar aaru Louga jëm ca kanam di la woo wuy woo leen daal looloo ma jaaxal. waaw. fees naag ba. joxoon nag gaa yi kaaru njàmbur. te leen ci un million. te loolu la yam rek dañoo wuti wuti bu ko neexoon mu jox leen kaaru njàmbur bi tegal leen ci un million. Moustapha Diop c' est le de la commune de Louga. question ñaan ko. obligation la. da ko war a def. sa waa dëkk yi compété parce que culture compétence transfert ci loxoom lañ ko teg. incha allah léegi ñu leen loolu rek te ngeen wax ci def ci bu baax a baax ndax am na loo xamante ne nii ku nekk yi boo sañoon foo dem am fa ndam soo sañoon soo toogee di seetaan télé ka nekk ca Europe wala ka nga xam ne moo nekk sa jour même dëkku Sénégal nga faral ko sax day gagné waxatuma laa koo xam ne fii la dëkk muy Louga dëkk dëkk Baye Djily Mbaye bi kon ñu ngi lay ñaanal yal na leen yàlla may ndam ci loolu nga xam ne ci ngeen jublu ñu lay laaj sa des dernier mot lan la waaw gis nga sama sama dernier mot ak mooy rek di wax rek ci concours beeg parce que gis nga nawetaan yi concours beeg ko gën a gën a gën a am doole. phase nationale concours beeg ko gën a gën gën am doole parce que concours boo boo kii ne xamante si dañ cee teg 10 million amul amul ci nawetaan amul ci dara. 10 million la ñu teg ki jël paie 5 millions lay am. de bi 3 millions troisième bi 2 xam nga loolu rek. dayoo dayoo ak tamit dayoo dayoo bi kooku bi am ak leneen nag la la la li ci mën a amaat. xam nga loolu moo gën a maanaam gars yi daal nañ ci nañ nañ ci jàpp daal. xam nga nañ ci jàpp daal di di gërëm nag. Père Ngari wax léegi muy sunu yaay Coro Ndiaye Jongu dem nañ seeti ko. avant ñu fay jógee mu jël enveloppe bu diis gan. jox ñu sunu yaay Coro Ndiaye Jongu bi dañoo yegg wax ak moom mu yëkkati enveloppe bu dis gànn jox ñu ñu lii maa leen ko jàppalee te nag bu bu mu siiw. Mm-hmm, xam nga bi ñuy def photo. Mm-hmm. bi ñuy def photo dañoo bëggoon a génne enveloppe bi mu ne non non mm-hmm. denc leen ko ba ba noppi ma doog a taxaw. xam nga et di gërëm tamit ah, ah, maanaam ku ci mel ne tamit ah, sama frère maanaam Abdou Koumba Diop. Abdou Koumba Diop tamit bi ñu ko seetee jàpp na ci bu baax a baax yëkkati enveloppe bu baax jox ñu xam nga di gërëm ki Père Ngari wax léegi muy sunu sëtu. maam nu mu tudd Maysa Sele Maysa Sele Maysa Ndiaye sëtam sëtam boobu ñëwoon ci sa kii bi Abdou Aziz Ndiaye ku baax bin ko ko waxee sur le champ barke Serigne Touba ci la yëkkati xaalis bu baree baree bare jox ñu ni ñu transport la waaw ñu ni nag dinaa ñëw dinaa ñëw ci seen bis boobu jàppale leen bu baax a baax comme comme ñooñu nga xam ne si ah, ñoo ci mën a def waxuma kii nga xamante ne nag ah moom moo jiite ñëpp. moom moo ngànk lépp xam nga ñu ngi koy woo di maanaam di gërëm nak waa ndigal africanisme sama gars yi nga yi nga xam ne bu ma yëkkatee ñu yëkkate bu ma tegee ñu teg xam nga di gërëm ñaaña jàllo boroom centre centre culturel ki nga xam ne bi may nas projet yeeg yëpp man moom xam nga jàppale na ma ci di gërëm nag kenn koo koo xamante si kenn la ci man muy sam papa Badara Ndiaye doomu Demba Dieye Ndiaye kooku moom wax dëgg yàlla su may wax ci moom sax du ma bëgg a bàyyi ndax lépp man moo ko def ci man xam nga bi nuy dem xaalis bu baree bare bare baree bari la takk te xaalis boobu yaakaaruma sax ku ñu ko joxaat xam nga xiifuñu maruñu transport oto bi lépp moo ko def añ lépp moo ko def bu dul woon ak moom mu ñaaw trop. waaw Badara Ndiaye ma lay ñaanal gudd yàlla jox la ay xéwal yu ah. ba Badara Ndiaye mooy doomu Demba Dieye. waaw moom ma nekk Suisse. aussi nag ma ci woo ñooñu nag Jengos. Papa Dieng Diengos ma leen di woo yéen yéen yéen nga xam ne yéen acteurs culturels yi xam nga yéen ñu teete ci art ñu leen di woo acteurs culturels yëpp artistes yi fettkat yi tëggkat yi théâtrekat yi di woo nag suñu papa Babacar Sarr di ko gërëm mhm. tawarga bi ñu jëyee demi euh, demi kii bi final bi ñëw na ba grand théâtre encouragé ñu jàppale ñu te te tamit final bi day ñëw kon daal maa ngi gërëm ñëpp ah di gërëm yéen it parce que émission bi tubaarkàlla digg di ñaanal sama waa ji Babacar di ñaan nag leeral leeral yal na dem ba raw télé yëpp ci àdduna bi waaw yal na law ba ah mu doon sunu sunu sunu succès parce que nii la rek mhm. waaw Louga moom ñun war a jàppale dara dafa bari mhm. waaw kon ñun yàlla yàlla ñu yàlla may ndam lu sedd guy ñu indi ko Louga mhm. feete ko ak waa Louga te ñëpp xam ni nag Papa Dieng demul concours ndigal Africa demul concours Louga mooy dem concours waaw di ñaanal nag sama sama waa ji loxoom gën a wér. jaajëf jërëjëf euh, Papa Dieng ba tax na li nga wax dara mënuñu ko cee tegaat ñuy wax waa Louga waxuñu autorité yi kese mais képp koo xam ne doomu Louga nga te nga mën a jàpp ci bis boobu nga jàpp ci waa Ndigal Africa yàlla may leen ndam ñu ñëw fii ci Louga indi fi ndam ndax seen ndam mooy suñu ndam kon yal na leen yàlla may jàmm na xéewal yi bëri na ndox mi bari na zi yi bari ba ñu mën a tàccu man mii maa nga fa keneen ak keneen mu nga fa te képp koo xam ne yaa ngi dëkk Louga rek ñu ngi lay woo nga ñëw ci bis boobu nga xamante xamante ne ñu ngi koy defee Ndakaaru le 3 décembre ñuy ñaan yàlla ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci barke Seydina Mouhamed maa ngi ziyaara ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ziyaara ñaaña borom centre culturel di ko ñaanal jàmm nee naa la yow oyof yaa yow sa mbir la mënoo ngaa jël garaat bi rek def ko fu la neex di dox di koket koketi mais dangaa bëri jàmm mën a kaf mën a la yàlla may ndam ci barke Seydina Mouhamed di ñaanal ñëpp jàmm di leen tàggu di leen jox rendez-vous dimanche incha allah rabbi di wax lépp luñ fu wax rek yal na dugg ci xol yi lépp luñ fi wax rek yal na nekk loo xamante ne la waaw waaw waaw waaw. parce que dama festival. Mhm. ñëpp jàpp wax nga dëgg. Mhm. Euh, boo toogee am occasion boobu gërëmal ñëpp. Mhm. d'abord staff bi nga xam ni. nekkoon nañ ak ñun euh, jamono boobu bépp mu yow mii di Mamba Dem di Ndeya mii Ndey Ba euh, Amina Fall ñoom Ahmed Diaw. Babacar ci réalisation bi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoom mbaaj ñoom day jóob Matar Sakho ñëw nañu euh, tubaarkàlla kenn ku nekk def ci loxoom pour que mbir mi réussir muy onzième édition bu am solo la ku ci gërëm baax nag waa kër man Birama Sele mhm. xanaa sànq gis nga gar mi mhm. gar xam koo dégg maa la man ku ma tàgg duma may kenn daal laalul maamam mhm. ku laal sa maam nga mayee la nga yor Euh, am na sax yaakaar ne xëy na ñun ay moyens lañ ci mais dañu nekk ci la renaissance di patrimoine culturel immatériel jàmbaar yi làq woon ñëpp la ñuy ba gone yi moyto gone yi xam ni xam nga Sénégal buñ bàyyee ñu rek musibaam dañ leen di wax yéen ñi ngeen war a doon na ngi nii ñu bàyyi li ñuy def nga xam kenn dootu leen nax kenn du leen dugal ci ay cirque yu ñàkk fayda parce que ay garmee dëkk Sénégal sëti Birama Sène mais kenn ku ci ku sant Ndiaye da ngay gis même même même ndayaam yi ci la bokk ay doom ci lañ bokk kenn ci la bokk dañoo yaatu moo tax at mu ne daañ génn benn ténor ba ñëpp xam ne kenn bi ñuy sant ki tere xool yëpp a sedd parce que ay kilifa ñëw. dëgg la ak ñu ñëw fekk ma nag nos autorités. Mhm. mais malheureusement duñ bokk ci yooyu quoi. Mhm. parce que intéressé wu leen. Mhm. mais nag autorité mooy maire Kokki. Cheikh Ndiaye maire Kell Gueye. Cheikh gor ñëpp a ñëw toog. gouverneur bëgg ñëw waaye am empêchement yebal la préfet mu ñëw assister ko état ñëw gisul nag suñu autorité yéeri ba ñëw na teewal fa conseil départemental parce que man man moom laa invité woon moom man parce que dañ koo séq mais daa ñëw ndeysaan muuraale leen ni mu ko daan defee mu yéen daa am xam-xam waxuma ñeneen ñi amuñu xam-xam mais yéen daa am xam-xam ma jigéen ñëw maa ko invité mais ñëw yóbbaale waa mairie ba yàgg na ñu yóbbaale cooy nag war nañ ko jomb nag ñu xew ñu mel ay maire jóge fenn wala ñëw fekk la fa mais réussir na may gërëm koo xam ni Aminata Mbengue Xaali yàlla na ko yàlla may jàmm cay bul woon moom mhm. door naa yaa yàgg de def sama dërëm ak ci pour mu taxaw mhm. waaye daa ñëw bàjj ma mhm. ni ma doxalal waa kër Birama Sele ñëw bés nu dégg lii ndeysaan ni festival leen ñu def ko mu neex lool nag ñuy gërëm ñëpp Babacar Mbaye ndaag mu jugoon Dakar ànd ak kuro ànd faat kinne ñoom Assane Sarr ñoom Diadji ñoom Ali Balde ñëpp bàyyi seen i gox ñëw. Mm-hmm. ak Babacar beneen paa bi. Babacar Mbaye nag la moo tax ñi ñëwul xala bu ma leen dañoo amul jot. Mm-hmm. ñi joxewul dañoo amul xaalis. Mm-hmm. kenn doon xaral. may yàlla na yàlla may ba mu déwénu ñu mën a dem. may leen temps mu mën a parce que ñun dañu dëkk ci organisé ba ba ñu ñibbi Touba. kon ku ñëw baax na ku ñëwul ñun ñi nga def noonu. dëgg la. kon Papa Niang ñoom li ñu xewle du question joxe xaalis mais dafa deexoon tey la maire ñëw toog ca kanam conseil département ñëw feelu ko gouverneur mënut a def loolu mais am na ñoo xam dañuy ñëw tey ñoom ñu gis seen autorité ngeen toog tëgg ba tëgg fu dara néew billaahi ndeysaan as gor boo ko boo boo ko jañee mu dox mm-hmm. mais da ngay da ngay joué ba dee. xool doo gis benn autorité. c'est dafa daw yaram dafa metti fu ñu dem am ndadda parce que kum neex nga xeex leen. Mhm. parce que am ku leen défendre. ndax mbooloo mooy doole. te pourtant waa Thiès di tëj. ñu dem ca kanam ñu continuer bëtu <laughs> amuñ benn njëriñ. moo tax nit day teewal aw askanam. dëgg la. en tant que maire je suis là. Mhm. pour défendre samay gone ñooy tëgg tey. wax ko sax ay yeneen ministre ñoo leen toog. ñoo leen toog sama waa kër ñoo leen ñoo leen financé. waaw ndeysaan ko comme déglu la. ndeysaan kon nag. barki démb mhm. amul kenn ku des ñëpp a dem. waaw même ministre de la culture daa dem fekk ji mhm. kon nag damay gërëm ñëpp di leen sant du ma xalab. waaye danañu janc nit ni leen dee ndax dinañ ci taxaw di jàpp ci yooyu festival nañ ci jàmm mu jeex ci jàmm ñu ngi gërëm ñëpp kun tudd ak kun tuddul ñëpp a jàpp yàlla def ko réussite ñu ngi préparé douzième édition incha allah dans seen tanoor bu mag ñu tuddewaat ko ko mhm. ngir fësal gor ñu baax ñi magoon nga xam ne Louga am na ñu baax ñun dool doo mënu ci yóbbu kon nag jazakallahu xayran di gërëm Serigne Gueye Diop sama maire mhm. sama président mhm. euh, tudd naa ñu bari ci yëf ya waaye réaction bare wu ca wax dëgg état deful réaction nag ñaañoom def na réaction parce que mu jël centre joxuñu centre culturel bi mais wax dëgg je dis le ministre de la culture Aliou Sow docteur ñi ngi ma booleel trois cent mille la ñu yóbbante te dam na ko defal ay tranche nag mos respecté wul ñu pourtant bu waa Dakar xewlee da lañ jox deux millions trois mais ñun waa Louga trois cent mille waa waa Diourbel trois cent mille xanaa ñun bokkuñ ci réew mi question internationale onze mille chaud trois cent mille rafetul mais am na teg na ñu ñëw na ñu mhm. allah <laughs> loolu xéewal la ba tax na tonton Ngaye da ngaa sol lu rafet li nga sol rafet na de. waaw Serigne mhm. mhm. allah jërëjëf. dëgg la macha allah moo tax tey yaa ngi belli comme ni ko xale yi waxee tey yaa ngi nekk boogaa macha allah ñuy jaajëf. baax a baax a baax tonton Ngari mi nga xamante ne moom la ñuy defandool saa su ne dimanche bu jot muy émission leeral TV leeral point net émission aada ak cosaan ñu koy def fii dimanche bu jot murit ñu ngi lay ziar yow tamit bu baax a baax di la jaajëfal di la wax ne la li ngay xalam neex na lool car macha allah yow tamit Papa Dieng ñu ngi lay ziare bu baax a baax di la ñaanal jàmm di ñaan loolu nga xamante ne mooy concours boobu ngeen jëm yal na leen ci yàlla may man de maa nga ca kanam man maam Marème te képp ku ma xam la indi ci seen njortu ci barke Seydina Mouhamed di jaajëfal tonton Ngaari Ndeya maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax murit yow mi nga xam te ne yaa nekk ci bu mu xalam gi tamit fa saalika noonu Babacar kenn bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ñaanal Matar Sakho yal na yàlla may ko lu gën jagartaawam boobu ci barke Seydina Mouhamed di ñaanal sama waa kër nag samay doom maa leen di ziyaar di leen ñaanal jàmm li ko commencé ci sama taaw bu ñaawul boobu Abbas Touré maa koy ñaanal jàmm Anta Diallo maa ngi koy ziar sama séeri sama xarit sama soppee jóge Dakar ñëw fii toog ci man maa ngi koy ñaanal baax yow ne yàlla doo sama séeri sama rakk nga yal na yàlla dolli sa jàmm bu baax a baax képp koo xam te ne yaa ngi ci équipe bu leeral TV leeral point net nga xam ne ñoo nekk ci Facebook bi ñi nga ñoo nekk ci diaspora bi ñu ngi may jàmm ci barke Seydina Mohamed di leen jox rendez-vous dimanche 15h30 ci leeral bu baax bu ruus bi merci beaucoup nekk leen si jàmm jaajëf